daa leen ko wax di daa yàgg naa leen ko wax di ngeen am da nga am taw tawfeex la ci lañ ko may xaas la ñu am ñoom ñun fekk mu nekk nekk si liggéey xas dégg ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér a wér a wér yoo xam ne tawee ba ñëpp war nañ cee ñeex te ngeen dund ci tàggu yaay rek dañ ko bale xaas xaas ngeen am waxuma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen am. waaw incha allah kon bala ngeen di teewlu rek.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 ورضي الله عن شيخ الخليفة العام للطائفة المريدية الشيخ محمد المنتخى المكي حفظه الله ورعاه وأيده فينا ونصره وأتم ما نويته في سر وعلن من بر ببركة شيخنا وقروتنا وسيلتنا إلى ربنا تعالى أحمد ابن محمد ابن حبيب الله الشيخ القديم قاد الله ما اختار له asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yu tàddi ñuy bàyyi xel di ñu topp ci biir réew mi ak bitim réew noo ngi leen di boole nuyoo bi ni yàlla boole te mu doy nuyoo walis bépp nuyoo ñu tëbee ko sunu xol jëmee ko seen jëmu yu tedd yi te moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di ñaan mbuutum nuyoo moomu yàlla yàlla sotti ko ci kaw mboolem réew mi te xaasal ci mboolem waa Sénégal de xaasal ci yoonu murid de noo ngi del siwaat ci xasida borom Tuubaa yi ñu baaxoo di ko ànd di ko firi di ko jëlee ci luxatul arabiya di ko indi ci luxatul olofiya bu mbokki taal bi gën a am xememteefu jàng ko ndax xasida boo ko firee bañ xam maxnaa bi dafa mel ne dangaa fekk xam-xam bu sëri nga jegel ko ña ko soxla sëriñ bi lii mu def dajale ay xasida yii mu toxalee ko ci bindam gaa yu baax yii mu toxalee ko ci jàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ñaan yam daan ñaan wala lam digle yépp nit ñi di ko def sëriñ bi indi ko ci bindam loolu xam-xam bu sëri la mu indil ko kon xam-xam boobee ku koy leeralaat ba tey ñi ko xamut xam-xam la bu sëri boo xam ne yaa ngi leen koy jegal ci seenu xel yi ak seenu xol ya loolu kon moo tax ñu am pas-pasu nettali xasida gi nga xamee ne mooy taxribul aqsa fii abrakil faydi wa anfahi ma bihi yuusa min tawaalifi cheikh ahmadul qadim kaana lahu bi karmil baqil qadim de taxribul aqsa téere bu yàgg la bokk ci téere yi nga xam ne sëñ bi ñoom la njëkk a ay ndinkaan moo ci nekk ak xam-xam yoo xamee ne nit ki mënoon na koo bañ a xam ta war na koo xam kat ndax waxoon ko ci biir xasida nit ki war naa xam yi sëñ bi nettali ana yonent bu ci nekk ñaata wax yu la yàlla wàcc ci moom moom lay nettali la ko dalee ci aadama ba ci yonentu sallallahu alayhi wasallam mu yonent yi nga xam ne ñoom lañ gën a ràññee yonent yi gën a siiw te seeni tur ba tey rot na ci alquran yonent yooyu benn bu ci nekk mu ñëw waxal la kenn ku ci nekk jibril ñaata yoon la wàcc ci yow bu ca bàyyi ko dana nettali ba tey ñi nga xam ne ñooy dëkkee laxaraaf diggante aljana ak safara ñi nga xamee ne duñ dem aljana duñ dem safara waaye aljana lañ gën a jege donte nag danañ mujj dem aljana mooy ñi nga xamee ne ñooñu lañu tuddee ñooñu laxaraaf te suñu borom tuddee saar woob bi sóoratu laxaraaf mooy ñi nga xamee ne jëfaluñ yàlla leen yóbbu aljana waaye seen mooy yàlla gi ba tey mooy ñu yàlla mooy gu leen yóbbu safara ñoom daal dañuy digg doomi rek ñooñu juróom-ñeent lañ dana ko tudd fii bu ca jógee dana nettali ba tey yeneen lu mel ni bis penc waxtu wu ñuy dekki ak waxtu wu ñuy pang nit ñi waxtu wu ñuy peese jëf yi waxtu wu ñuy daje ca pencum yàlla mi yooyu yëpp jullit bi da ko war a xam bu ca bàyyi ko dana nettali ñeent ñoo xam ne yàlla sàkk na leen te amuñ nday amuñ bay bu ci bay ko dana nettali malaaka yenu xaras di juróom-ñett su ko defee na dugaat ci beneen beneen xitan muy beneen xasida goo xam ne lépp da ci laabire njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni ndaw war a wegee mag mag itam ni ñu war a yërëmee ndaw buñ bëggee pénc mi jag kër yi jag dëkk bi jag fokk ñu joxante xorma respecté wante kon xasida ga ca topp moom la ci jàngale kon loolu moom wasiya lay nekk loo xamee ne ndénkaan la foo déggee ndénkaan rek mooy loo xamee ne moom waxut ko njàngalem yonent bi la mu di ko dénkaane ci waxtu ne de su ko defee ne mu jël ko mboolem ñi nga xam ne sañ na leen a sañ na leen di dénk mooy aju ci moom mu dénk leen ko de moo tax mu tàmbalee wasaytukum yaa man ta'allaqu biya fii sirri wal jahri li wàcci rabbiya fekk la muy dénkaane yépp ñam ko sañ a dénk la ko dénk waaye nag fekk rek li yàlla digle ak lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle de nekk noo xam ne dénkaane boppam lu mu fent la de déedéet kon mu tuddee ko taxribul axsa ana lan mooy taxribul axsa mooy fekkoon lu sori lool xam-xam bu sori lool amoo naaru góor wo war ngir war a dabi xam-xam boobu ba am ko war a jàngi xam-xam ba am ko mu fexe nag moom mi xam lef yëpp ak fi ñuy wutee xam ak fi xam-xam yi nekk mu dajale loko ba mu nekk ci aw téere mu neex a takk nga xam ne yonente bu ne buñ laajee ana jibril ñaata yoon la ñëw gane si ko indil ko wax yu jëlee ko ci boromam tabaraka wa taala tënk na ko ci xasidi gi su ko defee nag loolu mooy taqribul axsa ci benn déggin bi nga xam ne mboolem xeeti xam-xam yooyu rek yu jëm ci wàllu googu wax na ko ci biir su ko defee nag ki koy jàng man koo takk bu ko neexee sax mën na koo mokkal buñ la laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaata la jibril ñëw ci moom nga man koo xam aadama ñaata la ñëw ibrahima kenn ku ci nekk ñaata la ñëw idrisa ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñaata la ñëw jibril ñaata la indi wax yu ca moom nga mën koo xam ci xamin woo xamin du jar ngay gëstu ji leen téeri kon loolu mooy taqribul aqsa mooy fekkoon lu sori lool ñu jegelal la ko nga xam ne danga koo mën a takk rek buñ la ko laajee nga mën koo wax benn par benn de waaye doo seet ci téeri bi demaat ci beneen téeri di seetaat beneen déer waaye day fekk yëpp rek ñu dajale ko ci benn téer ba noppi tënkal la ko la ca wér de ndax sëriñ moom la wér xam na ko ak la wérut xam na ko te nee na yàlla may na ma xadis yu wér yëpp ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam de ni ma suñ borom may noonu la ma yonentu may xadis yu wér yëpp kon mu ngi noonu kon lépp lu wér rek sëriñ bi lu mu dajale ci minam rek lu wér la loo gis indul ko ci minam rek kon mën ngaa jàpp na wérul de kon mu ne xasida gi taqribul aqsa mooy fekk lu sëri ñi jegal ko taqrib mooy jegal al aqsa la gën a sëri xam-xam ya nga xamee nit mënoon na ko bañ a xam ngir sàgg ko yóbbee nit mën naa ñàkk farlu ñàkk ko xam ñàkk koo gis mu fexe nag ba tëggal la ko caaw xasida moo tax mu ne taqribul aqsa xasida gi mooy jegel la nga xamee ne mooy la gën a sëri fii abrakil faydi ci gën kaa barkeel ci may yàlla yey bëbbu wa an fay ak gën kaa jëriña maa la nga xamee ne yoo saa des na dinkaane bi ci moom de maanaam mooy jegel lu sëri fekk lu sëri ñu jegelal la ko ndax ki la jegelal lu sëri kooku moo la noppal ndax kon bañ na ngay tukki di dem fu lam waxoon ci xasida rum naa sukoori tawajjuhu li la si yuxlil maqaama bila li jihaadi saami wa siini nee na mosuma dem saam wala siin xam-xam yëkkatiw ma di ko sàkku ji wax na tey suransir bila taxarukin bila taxarukin wala ijaala yaa man bi mukk sin xan maxaama jaala fi mu sax ci senegal rek ci la ko yàlla duyee mboolam xeeti xam-xam yi wëndeelu dem fenn de kon moo tax moom demul fenn waaye xam-xam yu sëri te am njëriñ sax donte demul indil nañu ko kon sëñ Tuubaa xam ci sëñ Tuubaa la yem mooy dañoo fekk lu sori ba noppi ñu jegal ko kon yow mi nga xam ne dangaa bëggoon a dem fu sori di sàkku xam-xam yu mel nii sëñ bi noppal na la te nag lam indi day wér boo demee ci yeneen téere yi dañ koy càmbar naan nii la demee naa waaye dala koy tënkal rek nga xam ne nii la wéree fii abrakil di mu nekk ci gën kaa barkel ci may yàlla yey bëbbu de wa an fay ak gën kaa jëriñe maa la nga xam ne yow saa des na dénkaane bii ci moom de kon li fi nekk yëpp mooy dénkaane képp de ak xam-xam yi nga xamee ne dafa sori ñi man la ko jegalal nga mën koo xam lu mel ni wax yu yónent bu ci nekk jibril ñaata wax yu la ko indil loolu xam-xam yu sori la lu mel ni xeeti ndénkaan yi muy dénk ci biir yëpp dégg nga ta mu koy dénk ñi aju ci moom kon xeeti njëriñ yi xeeti dénkaan yi gën a am njëriñ gis wa an faxe maa bi yosa kon xasida gi dénkaan yi fi gis yëpp mooy ndinkaan yëpp solo moo xam ci mag mi moo xam ci ndaw mi moo xam ci jigéen gi ak ku mën a doon rek dénkaan yi fi dénkaane dafa doon dénkaan yoo xamee ne mu ëpp njëriñ ci mboolem xeetu ndénkaane yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan dénkaane de mu tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa bismillahi sos ma sama wax turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa kon ñëpp ci aduna arrahimi bay aji yërëm ku soob ci àllaaxira sama wax ci tàmbalee tur sa borom yàlla mi nga xam ne mooy kii xéewal ñëpp ci aduna tey aji ko soob ci de wasala yàlla sax dàkk di julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad wa ali ak ñu ñëw sama bi ak saabaam ya wasallama tamu dooli koolu tasliman dooli koolu de gara ba ma tàmbalee bismillahi rahmaani rahim ngir rek wéyee santaane ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tey maa ngi wéyee santaane sunu borom ci alquran yàlla yàlla julli ci yonent bi nga xam ne mooy sunu sang bi mooy muhammad yàlla yàlla julli ci waa këram ak sahabaam ya ci waxtu mu di ko dolli kóolute ak sécurité de sallallahu alayhi wasallam de léegi nag ki nga xam ne mooy abil basar moom lay njake jibril daan na ko indil wax yu te mooy ki fi gën a yàgg mboolem doomu aadama man nga ne ci gën a gudd fan man nga ne mooy moom ndax mooy jiw yi nit ñëpp ci moom lañ bay ko ak sayyidatuna Hawa koo jël ñi ne doomu aadama rek foofu la bay ko moo tax aadama ni mu tudd ñi ne suuf ko doon tino mu doon ban boo xam ne min ma in mas noonu la ñi ne moom lañ tuddee turwa ban boobu ñi doon ko jaxaseeg moom ñi ne mu tuddee aadama aadama day tekki rek lu weex wala loo xamee ne benn dafa rax lu xonq ak lu weex ndax aadama suuf suñ ko bindee nekkul ne suuf su weex képp la suuf si dañ koo milance moo tax ñi far tuddee ko adama de moo tax sëriñ bi tuddee yonentu bi sallallahu alayhi wasallam walam yëkkun bi aadami ca jasbul xulóob nee ne yonentu nekkutoon nekk ku ñuul kukk wala mu xonq cur kon moom tee bu rafetoon moom la yoroon waaye nekkutoon ku ñuul kooku ba tey nekkutoon ku xonq cur de kon Adama mooy abil basar mbindeef yëpp ci moom lañ bàyyi ko moo tax ñu naan ko abil basar maanaam daal mooy seen baay moo tax ñu tuddee ko abil basar ñi ko noonu yonentu dañ ko tuddee abil basar ndax Adama mii rek ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bàyyi ko ci baatin donte Adama nit ñëpp ci moom lañ bàyyi ko de. waaye leer ga nga xam ne moom lañ dugaloon ci biir ndigam la ba yàlla digal malaayka yi ñu di ko sujootal malaayka yëpp sujootal aadama ba mu des iblis moom rëy dab ko leer goog leer gu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la Sëriñ Tuubaa wax de li nuurihi sajarat amlaaku mursalihi lil jaddi aadama nuuran fiihi munkatima Sëriñ Tuubaa nee na malaayka yi buñ gisee aadama ba di ko sujootal leer gu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ gis suñu borom rox ko ci ndigal Seydina Aadama de aadama mi nag moo doon jiw yi moom yàlla def na dundam lépp mostu tawat ndax mooy jiw yi ndax jiw du feebar ki nga xam ne day ji gerteem wala suunam day tànn lax day tànn lax ji bam set su ko defee nag mu dem daal di ca tool ya ji gerte gi nga xam ne mooy kembu kon Adama nag moom mooy ki nga xamee ne mooy jiw yi kon moo taxoon du daan tawat de moom Seydina Adama alayhi salaam moom nag ku doon fan lade de borom xam-xam yi ne nañ dund na junni at yu manqué wu dara am na ñu ne dund na juróom ñeenti téeméeri at ak fanweeri at ak juróom-benn waaye ci ñooñ tawraat dañoo waxoon ne Adama dund na juróom-ñeenti téeméeri ak fanweeri at loolu moom am na mbooloo mu ko wax Saxiid ibnu Jubayr ca la bokk nee na loolu la dund mooy juróom-ñeenti téeméeri at ak fanweeri at Saxiid ibnu Jubayr ca ña wax loolu ca la bokk. kon ay ixtilaaf am na ci li nga xamee ne mooy dundam waaye li gën a wér mooy junni am na ñu wax lu ëpp loolu am yu manqué wu dara moom Adama dund na ko te mosut ce tawat Adama moom waxoon naa la ne ñaar fukki biir la am soxnaam sii di sayyidatuna Awa ñaar fukki biir la ëmb biir bu ci nekk ñaari doom góor ak jigéen man nga ne am na ñeent fukki doom kon. gis nga ne kon moom ku gudd fan la fekkee ne ay sët sëtaatam ñëpp fekkee na leen bi mu demee bay faatu nag ki nga xam ne moo ko war a da ko doon làq ngir bañ ay mbokkam noonee ko kañaane ko ku mel ni Xaabil ak ña caaju ki ko njëkk a yoro yore wàllu nubboo gi ki ko dolli ci nubboo gi mooy siisa te sëñ Tuubaa ko indi fii ndax yónentu la woon dana wax ñaati yoon la ko jibril ñëwal moom siisa kon daal aadama mu ngi noonu mooy ki nga xam ne mbindeef yépp ci moom lañ bay ko de moo tax sëriñ bi ne nasala wàcc na jibrilu jibril ala abil basar ci ki nga xamee ne mooy bàyyi mbindeef yépp indil na ko wax yu xasara maratin fukki yoon bi wax yin ci wax yu mustatar la dalum bind de wadi faha yokk nañ ci mooy ful nañ ci maa salaasi mara ànd ak ñett yoon ala la ci ci kaw aadama mi nga xamee ne ataala guddal na allahu yàlla xomruxoo fanam yede muy dundam de nee na jibril wàcce ci ki nga xam ne mooy abil basar di sayidina aadama fukki yoon yoo xam ne saa bu ñëwee wax yu lay indi ca moom am na ne yokk nañ ci yeneen ñett muy fukk ak ñett yoo xam ne wàcc na ko ci aadama mi nga xam ne yàlla dafa guddal fanam nda wax naa la ne junni at yoo xam ne manqué wu dara dund ko xam ngeen ne kon loolu doonul loo xam ne lu ndaw la de ndax jamono ji xoolal xeetu yonent bi rek juróom benn fukki at waaw imaasal tey xoolal juróom benn fukki at diirub junni at ñaata nit ñoo fi faatu ñaata maam nga fi am ñi faatu fi ñaata maam nga fi am ñi faatu fi daanaka mën nga ne mën ngaa lim junni maam rek waaw mën ngaa lim ay téeméeri téeméeri maam junni at sa maam ak maamat maamat maamat mën nañ cee faatu waxuma la yow aadama nag dund na junni at yu manqué wut dara ba noppi nag di ànd ak wér gi yaram te tawat te du def dara loolu kon coob rek yàlla rek gis nga ne bi mu amee téeméeri at ak fanweer ci la ko yàlla may siisa boo mu ngi toll ci digg doolem la muy tegtale loolu yëpp mooy siisa moo ko war a ci nuboo gi de moo tax bi mu amee téeméeri rek ci la ko yàlla jox siisa siisa li muy tekki mooy hibbatu mooy mayuk yàlla moo tax bi mu nekk ci digg dooleem rek ci la ko yàlla jox loolu de kon jibril indil na wax yu li gën a wér mooy fukk ak ñett sayidina aadama de ci diirub dégg nga de junni at yu manku dara yim fi sax nekk fi de dégg nga de kon na sala wàcc na jibril jibril ala abil basar ci kaw ki nga xam ne mooy bàyyi mbinde fi de ansara maratin fukki yoon di wax yin ci wax yu mustatar mustatar ba de buñ bindi de borom xam-xam yi yaxal nañ ko bind nañ ko neen fukki yoon la wa din fa yokku nañ ma sarasi mara ànd koog ñetti yoon de alal la si ne wàcc na ko ci aadama mi nga xamee ne ataala yàggal na alaaw yàlla xomra dundam bi de kon gis nga ko mu ngi noonu waaye gis nga ne yonente bi moo ko fi gën a yàggati waaye yonente moom li yàlla wàcc ci moom wax yu kenn xamu nu toll aadama moom fukki yoon ak ñett rek la ko jibril dikkal indil ko wax yu ba tey wa arbaena ñeen fukk maratan yoon ma samaan ànd ak juróom-ñett moom jibril indil na ko wax yu ala qalil na ci kaw sunu karit bi sil limtinaan kay borom xéewal ya ba tey ko moom it ñeen yoon ak juróom-ñett buñ la laajee ana jibril ñaatu yoon la wàcc wax yu indil ko sunu xarit bi nga xamee ne mooy xaritub yàlla bi di wataq salaahu ibrahima xalila yàlla nee na maa jàpp ibrahima sa dëgg-dëgg mu doon sama xarit maa ko accepté de mu ngi noonu de def ko muy sama xarit de waaye gannaaw loolu yëpp yàlla da koo nattu ci alalam njabootam ak lépp lu mu am rek yàlla nangu koo gënal lépp lu ko yàlla nataro mu gis ne lii daal soxlul ko yàlla rek la soxla yàlla jàppal ko boppam xarit de kon xaritu yàlla doon ko doonut buntu boo xam ne dañ koo tëj ba nga Ibrahima doone rek keneen dootu ko doone at déedéet buntu ba léegi yàlla ubbi na ko de ku jaar fa Ibrahima jaanoo rek yàlla jàpp la xarit waaye Ibrahima exemple la rek ci ni yàlla di jàppee xarit ay waayam de dangay Ibrahima dalay maanaam dangay nattu yónneentaal Ibrahima li ko boroom jaruloon mu jaral la ko wala ko raw su ko defee suñu borom jàpp la nanga na nga xamee ne jàppee na ko Ibrahima waaye Ibrahima li may xaritoo xaritoog yàlla yonentu sallallahu alayhi wasallam moo gën a xaritoog yàlla kon wa arbina maratan ñeent fukki yoon maa samaan ànd koog juróom-ñett ala xalil rabbina moom Jibril indi na ko indil na waxyu sunu xaritu sunu borom bii nga xamee ne soo si limti naan mooy borom xéewali de yonentu yàlla Ibrahima alayhi salaam Ibrahima mii nag moom it gudd na fan guddut fan aadama ko ko fi gën a yàgg fuuf ibrahima xaasa min alxomre mi atun wa xamsatu wa safeena xaaman téeméeri ak juróom ñaar fukk ak juróom ñetti nettali am na ci waxees na ba tey waqiila mi atu wa satu wa tiseena aman téeméeri at ak juróom ñeent fukk ak juróom fukk muy cent quatre-vingt-quinze ba tey waqiila mi atun wa isriina aman wax nañ ne ba tey téeméeri at ak ñaar fukk moom la dund ba tey waxat qiila annahu xaasa maa yuqaribu mi atay ama kooku alkalbi wax na ko de nee na lim dund daanaka jege na ñaar téeméeri at waaye daal li gën a wér mooy téeméeri at ak juróom fukk ak ak juróom cent quatre-vingt-quinze loolu dund na ko ci ay at moom Ibrahima kon moom gudd na fan waaye mën naa wax ni guddul fan gudd na fan waaye guddul fan ndax am na yonent yu ko gën a gudd fan waaye moom it am na yonent yu gën a gudd fan am na yonent yoo xam ne rombuñ ca fanweeri at am ñoo xam ne rombuñ juróom fukki at ak ñaar ku demee yonent yàlla Suleymaan lii lay coow coow garaat ba mu amoon ci diggante jinne yeeg lu mel ni wàllu ngelaw leeg wàllu nit ñeeg jinne yëpp lim fi romb lim dund yëpp man nga ne matul juróom fukki at te gis nga ko kon yàgg fi moom amul solo nekkee fi loo xam ne daal boo fi bayee ko rek ñëpp danañ xam ne yàgg nga fi rek loolu mooy li solo waaye dund téeméeri at te nekkoo fi lenn lu neex yàlla loolu benn njëriñ amul ko de kon mu ngi noonu kon Ibrahima wax yooyu wax nañ ko ci waaye li gën a wér mooy téeméeri ak juróom ñeent fukk ak juróom kon daal buñ la laajee jibril ana ñaati yoon la ko indil wax yu mooy ñeent fukki yoon ak juróom ñett moom la indil xaritu sunu borom bi nga xam ne mooy borom xéewali de waxal ne wasap xamaratin juróom ñaari yoon nasal wàcc na ko moom jibril indil ko wax yu ala sinsa ku ñuy wax sinsa de juróom ñaari yoon ci la indil sinsa mi nga xam ne mooy doomu aadama doom la ci aadama alayhi salaam wax nañ ne sax mooy ñetteelu biir ndax biir bi njëkk mooy xaabil ak aqlima biir ba ca topp di ak la boodaa biir ba ca topp nag mooy siisa siisa nag borom xam koy wax lañ ne moom rek moo judd doon kenn waaye yeneen doon yëpp ay ay siix la ñuy nekk waxoon naa la tur yi li muy tekki rek mooy siisu mooy hibbatulaay mayeg yàlla la faqat wulida siisu waxat kaana xomaru nebiyu Adama siisu ba muy juddu ba ko yàlla di jox Adama maanaam am na booba téeméeri at ak fanweer sun borom may ko Adama booba mi ngi ci digg dooleem nekk ci nuboo gi ko yàlla jox. loolu ba tey dana tegtale ne bu fi Adama bay ko siisa moom moo koy donn fa qabila qabla wafaatu nabi Adama arsadahu llahu taala li taxini ابنه سيس قلقا له في الأرض فقام نبي آدم بالتحيين سيس ليكون خليفتي مما جعله نبيا في الأرض من بعدي وقد أوصى آدم سيس وهو على فراش الموت آدم بيم demee ba nekk ci lalu sukuraat mu wóor ko ne kon day faatu dafa daal di woo siisa dénk ko nuboo gi dafa da ko bañoon feeñal ku mel ni xaabil mbokkam yi ñi mbokk ak di ko kañaanee di ko rey moo tax ba muy faatu da koo nëbbu ba ko koy dénk boobu mi ngi nekk ci lalu sukuraat dégg nga de wahu ala firasil mawti ala umuri almuslimina wa suunihim wa nasahu wa nasli ala itibayi fatawala siisu almasuliya xalxan li walidee de siisu nag bi fi aadama bay ko ñi gis ne aadama bi may bëgg fatu faatu leer gi dafa mel ni dafa fay gi nekkoon ci moom ndax nubuwa gara la boo xam ne bu la ko yàlla takkalee ñëpp dañ koy xam malaayka yeeg ñëpp dañ koy xam aadama dañ ko daan top waaye bañ demee ba gis ne kii kat leer nekkatul ci moom booba dañ la booba lañ xam ne aadama kat mi ngi bëgg a faatu ñu gis nag siisa bu taxawee rek malaayka yi ñu ngi ko wër mbindeef yi bëgg ko lool ñu gis na ko leer nu boogee moo commencé di toxaloo ci aadama di ñëw ci doomam ji nga xam ne moo ko war a donn di ki nga xam ne mooy siisa de siisa jël leer gi nag aadama dénk ko wasaare yadoo ilaa ibadatillahi wa taati mu commencé nag du woote bi fi aadama bay ko di jëmee maanaam sariya boobu aadama bàyyoon fi ñam fi fekk ñëpp mu leen jëmee ci yàlla ñuy jaamu yàlla ci guddi ak di ko topp ci waxtu ne de sariya bi fi aadama bàyyi woon rek moom la doon pratiquer siisa moom nag nekk na fi nekk na fi nekk na fi moom it daanaka xaw naa gudd fan lool ndax dund na fi 912 ci ay at 912 ci ay dund na ko kon doonu koo xam ne gàtt na fan de daanaka moom la ko wéy juróom wi kon gën a guddee fan moom bariwut muy woy juróom wob di Adama de ndax juróom-ñeenti téeméeri at ak fukk ak ñaar loolu ku am ci ay at so dund doonu dund goo xam ne dund gu néew de kon yàgg na fi de mooy ki nga xamee ne waxat faasa bi makaanati asimatin xalqihi waxat aqaama nabiyu siisa fi awaqiri umrihi yahuju wa yaxtamiru ila anna maata rahimahu llahu de siisa mooy ki nga xamee ne mboolem doomu aadama yi moo ci ëpp cër ci aadama moo ci gën a màgg daraja moo ci gën a rëy cër moom siisa moomu ci mujj ak dundam daan na aj di omra rek ba keroog muy faatu daanaka ba ci mujj dundam daraan faral di aj rek di omra ba keroog muy faatu de dégg nga de fañ suul Adama ak Hawa rek moom it ba mu faatoo foofu lañ ko suul foofu lañ ko denc de yàlla na ko yàlla fayal ci waxtu ne te ñoom ñoom wax nañ leen ñu ngi leen denc ci masjidul xiif bi mi nan ca Makka foofu lañ leen denc de. kon siisa gannaaw bi Adama jàllee siisa moo fi nekkoon wuutu ko loolu danañ ci tegtale xadis bi nga xamee ne Abu Sarin al-Xafaari jëlee na ko ci yonent yi ak anbiya yi dafa mosoon wax na ko yow yonentu yàlla bi kamil anbiya wu maanaam anbiya yi ñaata lañ mu ne ko mi atu alfin wa insuroona alfan maanaam mel ni téeméeri junni lañ ak ñaar fukki junni qultu yaa kam rusulu min salika mu ne ko salaasu mi atin wa salaasata asara jamman kafiran qaala mu ne ko qultu ya man kaana awaluhum qaala mu ne ko aadamu de qultu ya rasulullahi annabiyu mursal qaala mu ne ko naxam xalaqoo bi yadihi wa nafaqa fihi min ruuhihi wa kallamahu qablan suma qaala ya abasara arbaatun surna suryaaniyuuna aadamu wa siisu wa uqnuuqu te wa huwa idrisu la de wa huwa awlu man qatta bil qalmi wa nuuhun wa arbaxun min arabi huudun de abo dafa mos a laaj yonent bi na ko yonent yi bëri nañ de ñaata lañ mu ne ko téeméeri junne ak ñaar fukki junne mu ne ko yow yonentub yàlla bi kana kan moo njëkk ci yonent yi mu ne bi nga xamee moo njëkk ci ñi yàlla yónni ñëpp waaye nag joxut ko sariya mu laaj ko ne ko ndax nabi la wala mursal mu ne ko yàlla moo ko bind ci loxoom rek ba noppi tabax ko wal defal ci coobareem ak ruuxam mu ne ko yow Aboo Sara ñooñu ay suryaani yoona lañ Adama suryaani yoona la siisu kasaalika naka noonu Idrissa naka noonu mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk bind ci xalima mooy ki njëkk a sol yére ba tey yii ñuy ñëw ñi di ko ñëw di ko sol waaye bu njëkk lañ daan def rek mooy di sol lu mel ni ay dara gi caaju de moo takan sëriñ bi ne wasaf amaratin juróom ñaari yoon nasala wàcc na ko moom jibril indil ko wax yu ala sinsa yonent bii di sinsa de wa wasal mooy tek ci ba tey yusufa yusufa moom it wàcc nañ ci moom wax yu arbaxa maratin ñeenti yoon de wa misluha kem ba tey moom misluha lu toll noonu ay dan ba tey ala idrisa moo wàcc ci idris faasili na nga gëstu faasili na nga amal alxel ma xam te kun kon da nga nekk raisa di njiit de ñeent yoon rek lañ wàccee wax yu ci yusufa moom la ko jibril dikkal indil ko wax yu ñeent yoon yooyu mu wàcc ci yusufa ba tey ñeent yooyu moo dellu wàccaat ci idrisa mu ne kon nag fexel nga ràññeele leen fexe xam leen boo leen xamee de yaa te ne ku leen xamut yaay raw ku ko xamut yaay doon njiit ca kookee moo tax ma ne wa yusufinu wa wasal jokkale ci yusufin yusufa ne jibril dikkal na ko indil ko wax yu arbaa maratin ñeenti yoon de wa misluha kem ñeenti yoon yooyu aydan ba tey ala idrisa moo wàcc ci kaw idris ci wax yu jibril indil ko ko fa xasili yow mii di ma déglu ak man mi koy firi nanga nga nanga xamal alxel ma xam te mooy ràññee xame leen de te kun kon da nga nekk isa doon njiit mooy danga ko xamee noo xamee ne yaa koy rawee koo xamee ne xamewul ko noonu de Yuusufa mi moom moom it xaw naa gudd fan ndax dund na téeméeri ak ñaar fukk am na ñu ne téeméeri ak fukk waaye bi gën a wér mooy téeméeri ak ñaar fukk moom Yuusufa moom la moom la dund de kon yàgg na fi waaye yàggut fi téeméeri ak ñaar fukk bu dee ci jamono yi nag moom képp ku ko dund moom mooy yàgg nga fi lool waaye bu dee ci seeni jamono nag moom ku ko dund yàggoo ndax léegi at ati nit ñi day gën di wàññeeku di gën néew ndax léegi boo amee juróom-ñaar fukki rek màggat nga wala bay ko nga fi yonentu nee na sama xeet wi li ci ëpp diggante juróom benn fukki at juróom-ñaar fukk la ñuy yegg rek faatu te booy xool ñu baax ñëpp fii ci suñu réew mi di Sénégal ñu baax ñëpp rombuñ loolu de ñu néew ko romb de waaye ñi ëpp ci ñoom loolu lañ dund faatu mu ngi noonu ba jamono jii ñi ñu jàppee ñu baax ñëpp bu ñu yeggee juróom fukki sax nga dégg da ngay xëy benn bis rek ñu tàgg leen kon Yuusufa dund na téeméeri ak ñaar fukk am ñu ne ak fukk waaye li gën war mooy téeméeri ak ñaar fukk dund na ko de. gis nga tey ba tey Idrissa mi kon ku gàtt fan la ndax juróom-ñetti ak ñaar moom la dund kon ci seen jamono yooyee moom ku gàttoon fan la man ko wax. bu doon ci jamono yi nga xam ne mooy xeetu yonent bi xam nga ku dund ñaar fukki wala fanweeri at dañ naan waaw diw gàtt na fan de kon bu dee ci jamono aadama yi jamono Idrissa kooku moom dañ naan kii gàtt na fan de waaye yonent bi gàtt na fan de ndax ñoom dañ daan gudd fan te ñun nag dañuy gàtt fan kon mu ngi ne gis nga fu ne atam yi képp ku ko am rek jamono ji ko am juróom-ñetti fukkaat ak ñaar la ñuy xalaat ci rek mooy faatu defaroo ci kaw suuf dara kon Idrissa amoon na juróom-ñetti fukkaat ak ñaar de mooy ki nga xam ne wax naal ne moo njëkk bind ci xalima dégg nga li ñuy wax xalima maanaam bind nii moo ko njëkk def de naka noonu yiri yi ñuy ñëw di ko sol yëpp moo ko njëkk def de ndax bu njëkk lañ daan def mooy di sol ay derde kon moo ko njëkk a def ba tey wa arbahan minal mi ina marra wasit salaasina alal mabbarra waxal ne wa arbaatan ñeente minal mi ina ak téeméer mara yoon wasit nang ci yokk ba tey salaasina fanweer alal mabbarra wàcc na ci kaw ki nga xamee ne mooy ki gën a baax mu ne tey ñeenti yoon yokk nañ ci ba tey ñeenti téeméer ak fanweer wàcc na ci kaw ki nga xam ne mooy ki gën a baax kooku nag yonent yàlla noo la moom it yonent bu fi yàgg lool la buñ sukkandikoo ci alquran moo ñu waxal boppam ne sax na ci nitam ñi di leen waar ilaa xamsiina aman junni at yu manki juróom fukki at yëpp mi ngi sax di leen waar borom xam-xam yi ne bi ko yàlla di yónni booba ñeen fukki la am waaye sax gi sax ci nitam ñi di leen waar man ngeen ne junni yu manki juróom fukk la bi toofaan gi amee ba nitam ñëpp alaku ñi ko weddi woon saxaan na fi juróom benn fukki at boo xoolee nag 950 boo ko jëlee pilis ci 60 nga delli pilisaat ci 40 loolu dalay jox cinquante kon man nga ne junni at ak juróom fukk moom yonent yàlla noo dund na ko ci kaw suuf kon yàgg na fi lool yàgg na fi lool man nga ne bokk na ci yonent yi fi gën a yàgg gis nga kon moo fi gën a yàgg sax Adama waaw moo fi gën a yàgg sax Adama kon donte Adama mooy abil basar kon noo ko fi yàgg la moo tax coono bu ne daj na ko waaye itam la ma waxoon rek oolaa yi la doo ilaa fajaran kafaaran nit judd na mu fekkee ko fekkee ne fa ay sët sët sët ku ñëw rek fekkee na sa sët te ku juddu gën a yées ku judd faajir nekk ci muy ak kàccoor ak saay-saay kon moom ku yàlla mayoon ak gudd fan la dem moom yonent yàlla noo moo tax kon bu la waxee ñaati yoon wala ñu laaj la ñaati yoon la jibril indi ci moom wax yu ndax daf fi yàgg lool waxal na ñeenti téeméer ak fanweer yokk nañ ci fanweer muy ñeenti téeméer ak fanweer waxal ne wa arbaatan ñeent minal mi ay mi ini téeméer bi ñu mi ina mooy mi atu rek mara ci yoon wasit dolli nañ ci salaasina fanweer alal mabar ni jibril moom la wàcc ci kaw ki nga xamee ne mooy ki nga xam ne mooy ki gën a baax te mu jubli ci rek yonent yàlla ndon alayhi salaam waxal ne ba tey wasitta maratin juróom benn yoon ala daawooda jibril dikkal na ko daawooda wa maratayni ñaari yoon libnihi dikkal na ko doomam ji de suleymaana te nag ustufiida na nga sàkkoo jëriñu yow mi may déglu xalamal bul juum dégg nga na nga sàkkoo jëriñu déglu ma ma di la waxal benn par benn. buñ la laajee yonent yàlla daawuda ana ñaata yoon la ko jibril dikkal indil ko wax yu ak doomam ji di suleymaan suleymaan ibnu daawuda suleymaan kii way juróom mooy daawuda mu ne nag sàkkoo la jëriñu taataan say nopp ak sa xel hubbi sa xol ma waxoon la ko ne la daawuda juróom benn yoon la ko jibril dikkal indil ko wax yu bu dee doomam ji suleymaan nag ñaari yoon dong dong dong la ko dikkal gis nga itam Daawuda mi taxut koo gudd fan bu dee ci seeni jamono juróom-ñaar fukki at rek la dund juróom-ñaar fukki at dong dong xool Souleymane sax moo gën a niwaat Souleymane juróom fukki a ak ñaar la dund coow li ngay dégg Souleymane ñin la nangam ngay jàng xisam ci alxuraan yàlla di ko nettali yépp juróom fukki at ak ñaar dong la dund képp borom xam koy wax nañ ne sax bi may bi may yor nguur gi ba fukki at ak juróom-ñett la am fukki at ak juróom-ñett dong dong dong lam bi may yor nguur li ñuy nettali Souleymane yëpp diirum ñeent fukkaat yi ci ci la ci la ko def diirum ñeent fukkaat yi diirum ñeent yi ci la ko def lépp loo dégg nim yilifoon njanaaw yi nit ñi ñeent ñeent yëpp diirum ñeent fukkaat yi la rek kon gis nga ni yàggut fi waaye gis nga tey Souleymane ni ko yàlla dimbalee waaw moom gis nga ko kon mu ngi noonu Souleymane juróom fukki at ak ñaar la dund bu dee baay ji di Daawuda muy juróom ñaar fukki at la dund kon baay ji moo ko fi gën a yàgg Souleymane kon taxul ko fe yàgg waaye nag yàggee fi moo gën yàgg fi kon ñoom ñëpp dañ fi yàggee kon nag sëñ bi nee ne taataanal wasita maratin juróom benn yoon la jibril indi wax yu ala daawuda ci daawuda omara tey ni ñaari yoon ci la indi wax yu libni ci doomam ci doomi daawud ju di suleymaan istufida na nga sàkku a ma waxal la ko su ma salaasina topp fanweer wasit dolli nañ ci sintay ni ñaar ala ibni maryama ci doomi maryama ja te mooy Iisaa ibni maryama bi dooni may ni ci lurut benn fen fanweer yoon rek am na ñu ci yeneen ñaar muy fanweer ak ñaar Isa ibnu Maryama ci la ko yàlla jox li nga xamee ne nga xam moom taxul ko gudd fan sax ndax moom téere yëpp dëppoo nañ ne doonagul ko faatu yàlla ko yéegee ndax dañ ko bëggoon a rey yàlla ne bal rafa'ahu Allaahu ilayhi wa ka Allaahu azizan hakiiman moom fanweeri at ak ñett rek la dundoon yàlla yëkkati ko gis nga fanweeri at gis nga kon moom ay atam lu mu néewee sëñ bi itam soxna Jaaratulaay gis nga ko turandoor moo ko fii ci Sénégal wala man ngaa wax réew mi sax gannaaw bu yonent bi jàlle mën ga moom néew na nga dugg ci benn dëkk te tudduñ fa soxna jaara wala ay soxna jaara ñoo fay nekk ay ay ay tey itam su turu ndooram yi la yàlla gën a jagleel ñoo gën a mën alquran ci jigéeni Sénégal yi ah, boo doon wër jigéeni Sénégal yëpp di leen tànn ñi tudd faatoog ñi tudd nangam mag boo ñëwee ci soxna jaara moom da ngay tànn ba doyal rek kon gis nga ko kon Insa gis nga ne fanweeri at ñett la dund suñu borom yëkkati ko yéegee ko fa ne te fanweeri at ak ñett dong moom la dund kon moom it jibril indi na ko fanweeri yoon ak ñaar ci wax yu sëñ Tuubaa nee na bii dooni may ni kooku nag nar amut ci fenn amut ci moo tax mu ne suma salaasina topp fanweer wasit dolli nañ ci sintayni ñaar muy fanweer ak ñaar ala ibni Mariama moom la jibril indil wax yu Iisaa ibni Mariama bii dooni may ni ci luru benn fende mu ñëw nag suma alaasil xuluxi topp nag borom jukku ja alaasimi kadaa ji màgg muhammadin turam mooy muhammad nabiina mooy sunu yonent bi alkarimi kadaa ji tedd mi'ata alfi maratin téeméeri junne yoon wa wasida yokkaat nañ ci ba tey xasaratu alaafin fukki junne loxo ñeel na ko moom yonente ba tam jiida ak màgg gis nga moom moo gën a màgg ñëpp ndax wax yu moom la daan gën a dikkal moom yonente bi yonente bi jibril du am ñeen fukki fan lu dul ñëw na du am fukki fan wala ñaari bis moom daanaka da daan toflante di ñëw rek benn benn benn benn benn diirum ñeen fukki fan daal jibril moom arrêté na indiwut te yonente bi loolu da ko jaaxaloon maanaam wax yu dafay neex ci yonente yi moo tax buñ ko gëj a dégg rek mu mel yow mi nga xam ne toog ba yàgg rek gëj a dégg sa mbokk woo ko moo tax na Jibril dara Jibril moo daan sarse yonent bi te wax yu la ko daan sarse yonent bi toog ñeent fukki bis yoo xamee ne Jibril ñëwulut ko mu ne man sama xarit bàyyi na ma de daraan dem sax ba doj ba yëg ci doju màkk yi bëgg a daanu waaw waaw ngir lan Jibril lim gëj ñëw rek képp. mu jig nag jibril ba mu ñëwee dana ko wa maa natanazzalu illaa bi amri rabbika ñin kat bu ñu wàccee dañoo am ndigalu sa borom ndax loxo maa bayna aydinaa wa maa xalfanaa wa maa bayna saalika wa maa kaana rabbuka nasiyan waaye gëj gi ma gëj ñëw ci yow nag sa borom fàttuwu la de gis nga kon yonent bi ak bëggoon wax yu waaw ku bëggoon wax yu la ndax loolu loolu mooy sax seeni bëtëri ñoom ni ngay gëj a déggee sa mbokk këri de woo ko noonu moo mel ni dafa mel ni wax yu bu bay ko càll di ñëw ci yonent noonu rek la mel bu ko gëj gis rek mu ngi noonu day mel ni ku dof rek day defe ne boromam da koo mere kon yonent bi nga xam ne mooy borom jikko ju màgg ji te sunu borom nee na ko wa innaka la ala xuluqin azimin jikko bu doon am néeg yaa teg ca ñoom la yaa féete kaw ñëpp jikko kon buñ la laajee ñaata yoon la ko jibril dikkal muy téeméeri junne ak fukki junne téeméeri junne la waaye nee na yokk nañ ci fukki junne kon muy téeméeri junne yoon ak fukki junne yonent bopp ñeel na ko ak màgg ndax mboolem lu yàlla sàkk moo ci gën a màgg kon yonentu sallallahu alayhi wasallam jibril dikkal na ko mi ata alfi maratin téeméeri junne yoon wasiida yokkees nañ ci asaratu alaafin fukki junne loxo ñeen na ko tam jiida ak màgg moom yonente bi salaa sallam ali yàlla nekk ci yonente bi afdalu salaati ngeen ci julli wa salaam ak salmal wa sahbi ak sahabaam ya wa saa'ira rusli ak mboolem yonente yi alkiram ñi way tedde nee na yonente boobu yal na yàlla dolli ngeen ci julli ci moom yana na yàlla dolli ngeen ci salmal ca moom mook sahabaam ya ak mboolem yonente yi nga xam ne ñu tedd lañ yàlla bu yàlla dañ mukk di julli ci ñoom ñëpp ne mallaka jox naa xal sama xol xubba jundi bëgg mboolem soldaar yàlla yi ali yàlla doole nekk ci ñoom asalaamu dollig wóolug yàlla faddullahi ci mbaaxu yàlla ci ngëneelug yàlla nee na sama xol mboolem koo xam ne soldaaru yàlla rek la moo xam muy malaaka wala mboolem koo xam ne xaritub yàlla soppeem nga yàlla kooku jox naa la sama xol de maanaam sama xol yaa nga ci bëgg naa la sëñ bi ñëpp la bëggoon ku di soldaaru yàlla rek bi dalaa bëggoon kon mu ne jox naa sama xol mboolem soldaaru yàlla yi te mooy malaayka yëpp yàlla na doole nekk ak dolli kóllite ak mucc ci waxtu ne yàlla dina ko defal ci mbaaxam ci ngëneelam ahbabtu bëgg naa jibril jibril al amin kada kuñ wóolu wa sihaab ak sahabaam ya wa sihaab ak sahaba ya li wàcc man ngeen jëmmi ka nga xamee ne ax naa doylu loo na ma bi mux jilin ci loo xamee ne gàccal na sax asxaab niir yi nga xamee dañuy dotteeku di wàcc ci kaw asamaan yi wala ba tey bu la neexee nga ne ahbabtu bëgg naa jibril jibril al amin ak ka ñu ko di yonente bi wa sihaab ak sahabaam ya li wàcc man ngeen jëmmi yàlla mi nga xam ne ax naa moom yàlla doylu na ma ca moom bi mux juli doy la goo xam ne sax gàccal na asahaab niiri niiri lu ñuy sotteeku sotteeku yàlla jox na ma loo xam ne gàccal na niiri lu ñuy sotteekoo ci bëri taw bi ak bëri ndox mi li ma yàlla doylu ci moom jox ma ko maanaam gàccal na niiri lu ñuy sotteekoo kon bëgg naa jibril bëgg yonent bi bëgg sahaaba yi ngir jëmi suñu borom mi nga xam ne moo ma doylu loo ca moom jox ma loo xam ne gàccal na niiri lu ñuy sotti sotti xeeti taw yi waam yi lu ñuy bëri bëri la ma yàlla jox doylu ma ci boppam nee na gàccal na mboolem xeeti niir yi